dikk ak ñun ci l'école bi waroon a ubbi tey ji ngir élèves yi def examen te yëf yi mujj ta antu fiasco programme la ko tuddee mu di ak lajj gokk euh, des koy soog a yàq rek waaye ba cin la dalee xeeñ yàgg na mooy l'observateur xëy bi na dëkk nag ñu nit ci diwaanu Touba Mbacké ak xew-xewu jamono bu fa xew bu doy waar mu di seen nas ndaw soo xamante ne ji mag la sax tollu na ci téeméeri at ak fukk ak juróom-benn dafa faatu waaye lu aju ci cëram yu ca bari daal dañoo fekk kon ñu daal di koy jël bokk na ca baaraam ya bokk na it ci lenn ci sikkim bi euh, Euh, waxuma sikkim bi karaw gi nag mooy sikkim bi foofa noonu daal menton bi ni ko tubaab di waxee l'observateur dikk naag ñu nit ci euh, ñetti weer yooyu coronavirus bi def na ko ci suñu biir ñetti weer yoo xam ne ak njàqare la ak coono ak nit ñu faatu 43e décès ña ngi ko amee ci diwaanu sali mu di lu yéeme ci Petite Côte ba l'observateur xëy na bind loole l'observateur dikk naag ñu nit ci Cap Skirring ak lu aju ci euh, doxub ñaxtu bañ fa doon amal te mu mujjee ci deret yi mooy yi gën a fës ci xët mu njëkk l'observateur témoigné dikk ak ñun ci covid 19 ak Macky mi delluwaat gannaaw école waroon a ubbi tey jëm ci élèves yi def examen tëjaat nañu ko ba jëmmi jamono euh, le quotidien ñun ci covid 19 beeg anam yi ñu ko yore vivre avec le scandale la gis na ne Mansour Faye euh, mi ngi tuumaal ñi nga xamante ne ñoo di transporteurs yi ci ne ñoo yeexal dund gi ba tax yeggul ca seeni borom Abdoulaye Diouf Sarr ak euh, Cheikh Oumar Anne ak Mamadou Tall ak Ali Nguy Ndiaye le quotidien jàppe leen ay cas suspect lu aju ci njàng mi waroon na dool tey jii ngir élèves yi def examen dàq nañu ko ba jëmi jamono quotidien moo xëy jukki yooyee ci xëtamu njëkk libération di ak ñun ci covid 19 bi mu ne kon dàq na ubbiteeg l'école yi fukki enseignant ñoo corona ci Ziguinchor am na téeméer ak fanweer ak euh, fanweer yoo xamante ne ña nga ñu quarantaine ana na gouvernement bi def ba joote ju yokkul libération mi ñu koy leeralal grand place dikk ak ñun ci ñàkk déggoo gu dox seen diggante ak ministère bi élèves yi ak parents yi nga xamante ne ji daal ñoom euh, xam naa dañoo yëgul xibaar bu mujj bi ndax ñi ngi naan école bi war a tijji loolee moo jurug jaaxle école ba dootu tijjati grand place moo bind loolee faal ñun ci gouvernement bi dellu gannaaw gannaaw ba ñu ne waxtu moo des ci école bi ubbi nee na fiasco bu mag la maanaam daal ak lajj gu mat sëkk. les échos dikk ak ñun ci mbirum Senelec di gëm ak Akile nee na euh, Senelec kon rëcc na ne des ko doon saax saaxee ci anam yu bon caxat caxatee ko waaye euh, loole kon du mujj am source waa xëy ñaari mbir benn moo di waxtaan wu seq na ko ak docteur Cheikh beneen bi ci topp di kenn ko faatu fële ca Touba coronavirus la ñu ne moo ko faat ab commerçant la ba ñu ne dañu koy sang sang suuli cangaay la ci bopp moo jur coow ndax ñu bëri dañoo taxaw ne du ca am. tribune xëy ñu xamale Macky Sall reporté na ubbite classe yi daam boo ci li mu bëgg mooy Mamadou Talla ñu dàq ko ndax dafa mel ni moom xamul lu géej gi di riir euh, ñaaxo ñaaxo yi yëpp moo ci dugal njàngum Sénégal le quotidien dikk ak ñun ci li mu tuddee cafouillage mu di ba jàngalekat yi dee dem di ñibbi fañ war a jàngale ji pëcc ga ca am am na leneen lu ca topp moo di euh, ubbiteg école du am tey jile la Sénégal ñëw ak ñun ci benn baat moo di état bi neenal na lépp l'état annule tout mooy lu journal bi bind ci xëtamu njëkk soleil national xëy jekkal wax ja nee na dafa fukki enseignant yoo xamante ne ji dañoo amee coronavirus ci Ziguinchor moo tax ndongo yi waroon a delluwaat ci classe yi ngir waajal seen examen loolee nee nañ leen nañu toog seen i kër ba jëmmi jamono anki di ne ñëw ak ñun ci coronavirus bekk ni mu sóobe koomuk Sénégal ci tolof nee na jeexagul moom la ñuy dund jamono ji Liverpool yitte woon na lool kii di Kalidou Koulibaly stade yéen a kaay moo ko xëyee ngir sax mu dem football leen moom Kalidou kulibali Liverpool nuppi nañu ngir yëkkati ñeent fukki milliards teg ci taabal ji bu nuppi jël euh, Divock Origi teg ca ngir ñu jox leen Kalidou Koulibaly record loole la xëye moom fanweeri milliards ak juróom-ñeent la gis 39 milliards francs CFA ba noppi jël euh, doomu Kenya bii di footballal Belgique te nekk ci Liverpool di Divock Origi ngir mu dem kon football yi euh, fële ca Naples ngir waa Naples man leen a jox Kalidou Koulibaly jeexaleeg sunu lamb sëñ Fall xëy na dikk ak ñun ci Yékini euh, Tyson Baboy ak Tafa Gueye nee na lamb ji mi ngi jooy jamono ji ñoo xamante ne ji ay champion tigi lañu